Salut les amis de Sport TV, merci encore gars de la confiance de nouveau lien. merci de vous des likes, merci de vous des abonnés, merci également gars de baisser des commentaires. Un plaisir au nouveau lien, chaque fois de partager des informations, qui Sénégalais, il fait folle Montenegro, 14 régions du Sénégal, Roukourouka, Gorgoradi, Gorgora, di Ninglen, di Foril, ni nek également qui est l'hôpital et qui est du Febar. Yal na suñu borom fëgg seen bopp ñu wër gam ñi nek ci kasso yi ngeen xamné aussi erreur judiciaire gënal lañu deful mo leen fa yobbu suñu borom gën leen fa delawat leen seen njabot ñi dédo aduna suñu borom xaral leen aljana fi daw ci gaay ñu on avance ensemble dans la magie de Sport TV l'actualité en on continue gars actualité bi nag ñu fas yi ki bi nga xam ne <laughs> supporteru Barça yi nag di Neymar bëgg a dellu du côté du FC Barcelone ki nga xam mooy donc Pape ne aussi fi mu ne nii mi ngi toj foofu de ca Tottenham lépp ñu indi ci ay leeral mais laata boobu nag ki ne nag gars yi di Oxlade-Chamberlain moom nag gannaaw bi nga xam ne jóge na ca Liverpool fi ne nii nag ñu koy tudd du côté de Beşiktaş euh, Beşiktaş du côté donc de la Turquie ñëpp nag jàppoon nañu heure bi na moom club mais amul woon club boobu léegi ki nga xam ne également nag aussi nag moom mooy Matteo Lavia la pépite de Southampton ñi nga xam ne mooy donc waa Liverpool defaat nañ beneen proposition bu ñi juróom fukk ak plutôt ñeent fukk ak juróomi euh, millions 45 waaye ñi di waa Southampton dañoo lankaat ba tëdd suuf ne loolu doyul ñoom daal soxla wuñu loolu mi xaalis xaalis bi la gën a yéeg quoi bu ñu bëggee ñu nag di Raya fi ne ni mi ngi gën a jege Arsenal Arsenal nag dañoo bëgg laata ndorteelu lii di Premier League bi mu daal di ñëw nekk seen gardien concurrence bu neex nar a metti moo diggante moom ak daal bi nga xam ne pour man ne nii voilà Arsenal daal xaw ma lan la gardien quoi peut-être remplaçant mais Ramsdale moom mooy loolu. kii nag di Scamacca Scamacca Scamacca nga xam ne gars euh, daaw Italie la nekkoon Paris Saint-Germain ko mu mujjoon a dem fa nga mooy donc ci West finalement delluwaat na ci Italie ñëpp jàppoon nañ Roma lay dellu ndax Roma mooy Morata. Morata aussi dañ ko doon tudd du côté de la Roma finalement nag Diego Simeone moo waxtaan ak moom convaincre ko muy prolongé contrat nag ba 2027 ak waa Atlético de Madrid loolu la gars yi di donc prolongation imminente pour qui nga donc Morata ki nag di Clément Lenglet moi du côté de l'Italie la Juve la Juventus de Turin moi ci nekk intéressé pour recruter kii nag di Clément Lenglet borom penalty yu bëri borom njaaxum yu donc mi nga xam ne daaw nañ ko Tottenham Barça donc da ko bëgg a jaay fi euh, donc également Alonso Alonso aussi gars yi fi mu ne nii Barça qui ngi à da koy inscrit ci liste bi jouer Liga wala pas ou non wala dette, parce que fi mu inscrit 9 millions la le di que li inscrit contre te duñ ko jouer lu la gaay di xol fi mais ki nak di Ousmane Dembous Dembélé xam ngeen né wa Barça gannaaw biñu nekké di yéxal kay di pour mu dem Paris Saint-Germain dañ ko convoquer mu daal di ñëw ndax dañu wara jouer trophée Gamper waye nak supporter dañ ko xorom dé ay xorom nañ ko xorom yu metti xorom nañ ko xorom yu metti sax gaay xorom nañ ko moom sap sap sap sap sap sap sap sap supporter du Barça dal mer nañ ki dal di Ousmane Dembélé xorom nañ ko dé nañ mi ngi ñaaw dé ñaaw na ba nopi waye xorom nañ ko dé xorom nañ ko ba nopi yéen ngi saf sap comme ku jógee geej tak mbéx léegi kay gars yi Ousmane Dembélé tey amul lu mu dajul ndeysaan ki nga xam ne nag mooy donc Neymar gars yi Neymar nag yéen kaay bi l'équipe nee na dafa wax waa Paris Saint-Germain dafa bëgg daal di euh, juge loolu nag démb ci dibéer gi leen ko daal di yëgal li ma ci mën a wax rek mooy waxoon naa leen temps yi boo leen fàttali xool leen situation Neymar ndax ki nga xam ne mooy donc euh, Pini Zahavi nañ si dellu si tuuti waaye donc demu Neymar bu fekkee c'est confirmé gars yi mooy que ne M&M Eminem tas na Messi Neymar Mbappé tas na ndax ñoom ñëpp dañ bëgg a euh, na leen weneen waa ji tamit beneen agent la ñoom ñaari ñoo ko jële woon Barça yóbbu ko Paris Saint-Germain fi ne nii ñoom ñoo dajawaat fa Ibiza pour fas yéene ko daal day jëlaat defar ko ci saag yóbbaat ko ca Barça donc Ibiza Barça Barça Ibiza fa la jaaroon ah kii nag bi également Gérard Romero waxoon ko ne woon nañ ne kii Neymar xool leen ko bu fekkee ne am na kuy jege Barça daal Neymar lay doon euh, jamono ji donc men daal mbir yi day xeeñ côté boobu noom donc Neymar nag dem Barça toog Paris Saint-Germain lépp solo mooy moom hygiène de vie. man sama jour la mais bu amul hygiène de vie dem fenn euh bi ñëpp boo ñu ne Neymar day jël ballon d'or mais ñak farlu ñak pour la li def moo tax quoi donc Neymar bi nga xam gis ngeen ko donc euh, ki nak di Xavi problème moy Xavi dafa bëggul yeneen dirigeants yi bëgg nañ parce que Xavi li muy bañ mooy comportement Neymar mo moo tax daal ñu indi jexi jaxa mais comme que Dembélé day dem ta gars yi dañoo bëgg fayantoo mi ngi noonu quoi du mel ne affaire jënte lañ koy def fimné ni ne donc Paris Saint-Germain FC Barcelone ki nak di Pape Matar jaytar Boy Thiès man football le fils de Sidat sar gars yi dal Pape Matar Matar Sarr toj na match bi nga xam nag moom la ñu amoon dem jogante xarito euh, bi nga xam ne gars yi dem il a fait un match exceptionnel 86 minutes la joué ah Skip moo ko daal di remplacé mais match boo xam ne Pape Matar Sarr gis nañ ko mu gën a nekk joueur boo xam ne essayé tenté na lu bëri il était beaucoup plus au devant de la scène il a été altruiste il a été dans la projection du jeu de ñi nga xam ne donc Tottenham il a joué aussi dans la verticalité mais surtout surtout surtout l'apport offensif bi nga xam ne mi ngi koy indi même booy seet ci biu Harry Kane bi mu mbëkk Pape Matar Sarr moo fa nekkoon mais xam nga Harry Kane moo ko jiitu positionnement attaquant bu baax la moo tax mais sinon Pape Matar bëgg ci caaxi bi gis nañu Pape Matar Sarr il a mi ngi tenté gars yi li ma leen wax nag xool leen xam kan la jox Pape Alassane Gueye daw bamuy muy dem Séville dafa toj Séville maturité bi mu am envie bi mu am aujourd'hui Pape Matar a la chance de se relancer parce que entraîneur bi nee na dafay jël carte yi lëba jëna carte gi ku mën sa morom duma la ko wax te gaynde moom bëggul mbuum te ki boy ties la boy ties mom xam nga ma ngok dañu bëgg a sañceeg bëgg jaay tar ak yoy même ci terrain bu ñu téye bal dañ la wan dañoo mën football donc Pape Matar fi ne nii gay donc am nañ yaakaar ne nañ football parce que supporteru wa Tottenham yëpp ñoo nañ ne fi ne nii Pape Matar dañ ko wara jox chance mu daal di jouer gulo également nee profil bu rare la moo tax fi ne nii daal japp nañ ne Tottenham ñom ñu bëri surtout supporter ne nañ jàpp nañu Pape Matar dafa war di titulaire ak équipe bi ak performance yi woné ci pré-saison gaay li mo nekkoon information ñu leen bëggoon jox c'est toujours un plaisir de vous servir woy leen di like woy leen di abonné on avance ensemble dans la magie de eSport TV bu baxé ci yéen la bone suñu la yalla na jàmm yag Sénégal yalla na dëgg yag Sénégal jaa ngeen jëf